mbokk internet yi daleen nag jàmm beneen version lañu am ci mbirum nag euh, coow la xewoon ci tribunal bu Diourbel ni ki euh, keroog ci diggante nag euh, procureur Diao ak ki nga xamante ni nag moom mooy maître Babou maître Babou mi nga xamante ni nag daanaka moo daal di jël lépp siiwal ko ginnaaw bi mu demee nag ca yu wal fajri ya nekkee gi daal di wax ni rek nga xam mooy procureur Diao ba nekkee ci tribunal bu Diourbel nag dafa doon wax ay kàddu yoo xamante ni ak baat yu ñagas yoo xam daf koo teg nag ci Serigne tuba rawatina nak ci tarixa murit kile moom ci li mu daal di wax mooy ni rek dafa mel dafa doon ñàkkal fayda tarixa bi ak tam yenn yoo xam ne dañ ko ci daal di dégg loolee nag daal di merloo ñu bari ci ay murit sax ba ca salle d'audience ba sax ci jamono jooju ñu daal di suspendre audience bi ak ginnaaw nag benn nak atte ko xam ne moo amoon ci seen diggante moom met ba boo doon défendre kenn ku ñuy duppee Cheikhouna Bousso ci mbirum nak coowal téré buñu ñu jaay ak jënd frais de tournage yooyu mel noonu ba ñu jotee tudd ab somme boo xamante dafa toll nag ci deux cent cinquante mille francs CFA waaye naka nga xamante ni mooy euh, bi nga xam ne moo porté woon plainte ci euh, itam doon sàkku bu ñu delloo ko xaalisam nag di euh, soin bu faal moom mi nag la ki nga xamante ni mooy procureur Diaw doon laaj ba xam xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy daal di wax daf ko daal di mayoon ki nga xamante ni moom ci ni ko doon laajee tontu plaidoirie ca la daal di demee luy wax ba mel ni nag kuy kokkali daal di nag ne eh, li nga xamante buñ sukkandikoo moom ba tey ci procureur Diawo nee na noonee la ko muriti ñoom jàppe na dafa doon kokkali ndax eh, li mu laaj ki nga xamante ni eh, moom mooy ka doon nag porté plainte mooy ne xaalis biñ ko daal di jox danga ko ko may wala addiya la woon comme yéen murit yi ni ngeen koy daal di defee ca saasa nee ci la ko met baabu daal di interrompre dagg ko nekkoon nag lii ngay wax bu ko waxaat ca la daal di répété moom procureur Diaw ne maa ko wax ba mu neex euh, ca la ko ki nga xamante ne mooy met ba mu daal ne ko va te faire foutre moom itam mu daal di ko koy delloo euh, coow la ne kur mënuñu leen nag daal di nag atte wax ji euh, ba sax ñeen ñu nekkewoon ci audience bi itam doon daal di faral ki nga xamante ni moom mooy met ba nakoon dem songu procureur ba ca saa sañu dagg audience ba daal di ku nekk dem moom procureur Diaw daal di xamle ni nag li xew sa métti ko waaye nag li ko gën a sa bett ko mooy li nga xamante ni euh, moom mooy naka maître ba bu wax jëm ci wax lépp dara amu ci ba noppi muy précipité woo média yi dem ca Walfadjri fu ne mu waxee ko fa mu mel ni man dama bëgg a daal di amal li nga xamante ni moom mooy ay kàddu ñagas teg ko euh, ci euh, nag askanu murid kile loole laa naa seetal sama der moo tax bi le compte rendu d'audience ma daal di koy def mu mel ni moom benn baabu kon moo daal di nag di daal di nag bëtti bëtti dem fu ne mu woote fa di yuuxu te loole demeewu noonu lu dul nag moom procureur Diaw ne mosut jóg ngi daal di ñàkkal fayda lenn wala muy sàggane wala muy jël leen di ko teg ah, ci ah, deru murit ci lee waaye nag liggéeyam képp la doon def xëy na nag ah, moom Maître Babou xër moo ko jàppoon nag ba mu daal di inventé ay mbir bu ñu sukkandikoo ba tey ci moom procureur Diaw mi jàpp ne lépp invention la ak bëgg koo jaxaseeg ko toog toog ni ñu murit Abdoulaye dafa nii doxaluñu